bo demé ci bidayatu suluk bu serigne touba bidayatu suluk daf lay wax ni dama daan wëndeelu ci digënté borom xam-xam yi ngir ma mëna xam yàlla lool day aada yi ku yalla na ma dimbali xëy na ñooña sax seeni cër kawé na waye ndong lu melni man dana sañ bu ko yalla xiiree ci lool yi muy mu cay mu cay gëstu ba ci guddigi nga xamanteni yalla dogal na ñu diko magal dañ daan def non wéru koor bu fukki fan yu mujj yi duñ ko génn li nga wax li itikaaf moom lañ daan def fan ñu nekk duñ ko génn ni yàlla dogalee la ñu doon wut nga xamante ni génnatuñ di ko wuti fenn doxut am na ci loolu nag wax ko daal des ko man waaye ñi di ko yëg te di ci ndax am na ci lool ñiñ ca yàlla dimbalee di su ko wax waaye nag ñi yàlla booleek yow ña ngi koy xamal seen bopp te li ëpp solo mooy nit ki nga bañ koo wax dara waaye yàlla di ko wanal boppam ndax xam nga ki tëdd ci ab lalam yàlla wan ko moo gën a wóor mu ñëw ci yow nga naan ko nàngam ak nangam ak nangam ak nangam li yàlla yëgal boppam ci xolam ki ànd ak yow am fu mu tolloon di dox xam ni fee mu nekkoon jóge na fa boo nekkoon ca kaw tali ba ngay dox di dox di dox di dox ba mu wóor na ni maa ngi woon biir kër Mbay léegi maa nga tëngëj wala ma nga barñi wala ma nga jam ñaajo wala ma nga fenen loolu liit ki lim yegal bopam dafa gëna woor li nga koy wax te tawfeex yoy ni ma ko yegge ci sama bopp yàlla dimbalee na ma yit ñi fi dox di fi dikk ñépp noonu lañ koy yegge xëy sax ba ñi nga xamanteni tay yalla dogal na li yegg ci ñom ci jamono bi nu weesu kenn ko ci nek li nga yegal sa bop fa nga nek fa la la loolu dimbalal yalla la ak tawfeexi ak ak tawfeexam kon kon jaar jaar yi moom mi ngi noonu am na ci loolu nag na nga ca jaaree da nga ko dut mën a waxe noonu waaye ñu xam ni daal ab jaamu yàlla lañ bu doye di te xeebu waaye di sant yàlla yit nag ci ay xéewalam ak i taw fee xam yi nga xamante ni sëmbatal na ko ci noonu nu doon it ab jullit boo xamante ni bu wér ak jullit la ci lu suñ borom mën a seede waaye nekk it nag ku nam ma dox jëm ci yàlla ci yoon wi nga xamante ni sëriñ bi yeesal na ko jaar ci ñu it ñëw fas ci yéene jaar ku ñu àndal it la ci yéene jaarale fas yéene nekk liggéeyalaa konam ci biir toolu lislaam bi ak ci biir yoon wi nga xamante ni mooy lislaam rek waaye nag mooy ki nam ma dox jëm ci yàlla kon jaar-jaar yi liñ ci mën a wax mooy loolu am na ci loolu nag dama ko dut man di waxtaane ndax yàlla moo ma ko mën lootu waaye daal nga xam ni noo ngi sant yàlla bu baax ci ay xam ak i jàpp nalam lañu ci gën a ñor nag mooy xiir gim na xiir ci boppam te képp koo xam ne yaa ngi fiy sos it yàlla ma ngi lay dimbali ca loola bu dee ci wàllu bokk noonu la tëddee bu dee ci wàllu jaar-jaar it nga xam ni fépp foo xamante ni daal ab jaam dana fa jaar ci sàkku lu baax ba yàlla jotale ko ko jotale ko ca loola jaar nañ fa ca suñ kem kàttan yàlla na moo am ñooñ def leen baaxe ba boo amee yéene jug dox jëm ci moom rek mu daal lay gàttandoo ak xéewal yoo xamante ni doo ko mën a misaal noonu sunu mbir ni nu ko jàppee mooy tawfiqul ilaahi yi maanaam daal dafa feeñal ci noonu coobareem akum nammeelam aku jàpp nelam ak kii maanam loolu daal lañu loolu la ñu jàppee suñu mbir ñu di ko ci sant ak cantu ko am fa mu tàmbalee waaye amut fa mu yem ñuy laaj laaj bi noo ngi ñaan suñu borom dimbali nu te dimbali leen jàppale leen te jàppale nu defal nu jub saxal nu ci saraata mustaqima musal nu ci ndog yi ak pakk yi ak musiba yi yëpp waaw kon loolu defe naa ni bu dee am na ci lenn lu ñu mën a leeralaat bu ko waxee ma mën ko ma man ko cee dolli bu dee fàttu naa ci ci bu gisee ni ni ma ko waxee leeral noonu it ba tey fali lay xam du bu gisee am na lu ñu war a yokk wala ñu ci war a leeral yëpp nañ ngir leeral ko boole suñu bopp rek amoon ah, te nekk benn tey jàppalante ci sunu biir tey dimbalante ci sunu biir te yàlla rek tax kenn ku ci nekk la muy wax ci kàddoom muy góorgóorlu bu baax ba muy dëppoo la nekk ci xolam kenn ku ne la mu bëggal boppam mu bëggal ko moroomam te muy dëgg bañ a wax ci saw làmmiñ lu wuuteeg li ci sab xol loolu ab jullit du ko def kenn ku nekk ci noonu nay ngeen di ci seen biir ci kenn ku ci nekk la muy yëngu te moroomam aajo woo ko mu ci jàppalante ak moom loolu waxoon naa ko sëñ Maka la muy yaakaar naa jot li na leen ko bu baax a baax a baax bu fekkente ni ab ministre daa nekk ci yéen kuy def kuy defar loo xam ne daa aju ci wàllum ministre te kooko man ko na ko ko jox su fekkente ni ministre mi taalib la noonu su fekkente ni maçon la noonu bu fekkente ni leneen la noonu bala nga koy jëggaane fenn te kenn ci daara ji man ko ngeen jàppalante ca waaye yow may yëngu ca loola nag na nga nekk nit ku jub na nga nek nit ku woor na nga nek nit ko xamante lañ lay def lo dang ko def defin wa ca war ndax nit ki so beugé ko la jappalé da ngay nek nit ku woor nek nit ku jub nek nit ku ragal yalla way tax jàppalante gi di manam su la su dee la leneen lu man di doon ni ngeen koy jëfé non rek non lañ ko soxla waaye nag jëflante nag la ca neex nag mooy ki ngay jëflanteel ba yéene ko ak yiw yiw wooyu moom itam mu yéene la ko te bëggal la ko loolu kenn ku nekk ci loolu nay nay nay nay bàyyi xel loolu kon kenn ku nekk la man ci biir daara ji yooyu yëpp di leen ci gëstu te du ca jëflante waaye nag na fekk it ki koy defe rek man ko mën lu wóor bañ mën naa lii te fekk la ngay wax démawul ak na mu tëdd bu dee téyër la te soxlaa ñawlu noonu ndax la nga koy joxe jàmbur jox ko kii moo gën yooyu yëpp ñu ñu sa jàppalante daal te di ca dimbalante ñor na ma lool kon ñu ñu ñu ñuy bàyyi xel loolu fu ñu tolloo bu dee ma soxla bu dee leneen la kenn ku ci nekk fa nekk na fa doon royukaay ci jub di wax dëgg ak lu métti métti rek lu métti métti métti rek dëgg rek ci sa wax ci sa jëf ci sa pas-pas bañ a ragal kenn kurub yàlla bañ a bàyyi xel kenn ku dul yàlla ndax fu ñu ko defee rek dañuy daal di juum ku ne ci mën bàyyi xel loolu bu ñu bàyyi xel kenn ku dul yàlla bu ñu bëgg lu neex mbindeef bu ñu ragal ko nu mere ci dëgg bu ñu xool ko woon gannaaw ci dëgg ndax nit ñi matuñu wéttal yàlla dong moo matu wéttal te ku mos yàlla ci wéttal nag dootoo soxla beneen wéttal ndax keneen koo bëgg wétli ko rek léegi si tey ngeen teqali ko nit ñi kenn lu mënta am seen ngërëm loolu ñu bàyyi ko xel amul benn mbindee bu mën am ak nit ñi kooku mënta ne soo defoon defin ñu gën a rafet jaar nii fukki nit danañ wax ci yow lu bokkut kii la muy wax du bokk kee la wax kii li wax du bokk kee la wax kon yàlla dong ma mata bàyyi xel da ngay seet ni yàlla bëgg ku ko doxee da nga doxe naa bul xool nag keneen bul gestu leneen waaw loolu lu ma ñor la maanaam dëgg nu sax ci bañ ragal kenn kudut yalla ndax kudut yalla rek mënalu nu dara bu nu ñepp de gërem te yalla gërem nu gërëm loolee duna jariñ dara wa bu ñu ñepp woné gannaaw te yalla gërem nu liñ bëgg lépp daana ko mëna am kon kenn ku nekk ci non bu mu bayyi xel kenn kudut yalla gis nga so génné fi dem ci dugg ci oto yi wala nga dem ci marché yi foo man di dem da ngay gis nit ñi ngay wétligoonte ak ñoom ñu bari ba jaaxal la waaye gis nga noonu nga leen gisee ñu bari par kenn la ñuy rocceeku par kenn la ñuy rocceeku par kenn la ñuy rocceeku par kenn la ñuy rocceeku ba jeex tàkk te rocceeku bi ba na xam ne bu sax ay dikkee nga rocceeku bay leen kon nag boo leen bëggee bàyyi xel rek da ngay def njuumte bu la kenn mën a yóbbaale ci bakkan bu la kenn mën a yóbbaale ci bànneex ndax ku la ci yóbbaale ëllëg la lay dal du la ma ko du la ko mën a fegal loolu yi koy bàyyi xel bu baax kum man di doon bu nekkul ci dëgg yow neel ci dëgg te maanu bu leen werante kenn kum mën a doon werante bu ko kenn di def fenn bul werante ci ay nitu yàlla bul werante ci ay yonent bul werante kii gën bul werante kii li nekk bul werante kaa lañ nekk yow daal nekkal ci dëgg te noppi bul ca boole leneen